juróom ñaari waxtu taftal na fanweeri simili ak ñaar mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ak seen kóolute xibaar yi marax yi ak ponk ye ca gën a fës dañu koy dooree eh, ca diwaanu Ndukkumaan jàngoro ji di deng juróom-ñetti kaa eh, nemeeku nañ fa ko gox ba mu gën a sonal mooy waa jàmm gën ba tax na eh, wajje way fajkat yi di sàkku rek ci askan wi ñu gën a farlu ci fàggu gi rawatina ci yowow nga xam ne moom mooy joxe deng ba tey ca Ndukkumaan jàpp Saalum itam beneen jàngoro Crimée Congo benn waaye bu fekk baax Koungheul euh, di ab euh, chauffeur la ñu euh, gis ci moom bile jàngooro ñoom it ba tey ñu ngi wax rek ne fàggu gi daal faaw ñu gën koo farataal lu jëm nag caaj màkk gi ak voyagiste privé mu mel ne mer ba ba tey gii fagut bokk na ca la ko waral ñu compagnie aérienne yi ak itam nanu yokkee mbir yi waaye itam quota di lim bi nga xam ne réewum Sénégal na ko am ci at mu jot ci ay ujaaj waaye itam euh, doxalinu délégué général bu pèlerinage tax na nag euh, ñu amal seenub euh, assemblée général ñoom sax nag ñu ngi sàkk ci nguur gi ngalla mu indi ci saafara coow la am ca parti démocratique sénégalais ak itam noonu ngeen gis muy ab not boo xam ne des koo génne doon ca ñaawlu doxalinu Omar Sarr ki xam-xama màcc jëm ci wàllum politique muy taskatu xibaar di Serigne Saliou Gueye la gis rek mooy Omar saar ak ñooñam euh, des leen a dàq ci euh, parti boobu bu nu sukkandikoo euh, ci communiqué bi nga xam ne génnee nan ko bokk na ca sax lañ leen di lañ àndul ak ñoom muy l'alliance suqali soppi bi nga xam ne dañ koo taxawal moom Omar Sarr ak ñooñam ñoom it la ñu wax rek mooy kenn ca gannaaw boobile not du kenn kurul Karim Wade moom sax xamul euh, daanaka parti ba ak tamit doxeek règlement intérieur ba ëllëg yem di dibeer euh, ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru euh, novembre bi ñu nekk di jongante palub njiitu réew ci Guinée Bissau daañu fa dem fekki fa barka ba def taxaw seetlu ci naka la ñu koy waajalee mbokk yi li mooy ponk yi fi gën a fës ngeen taaxee lu ma ñëw léegi ñu faram fàcce juróom-ñaari waxtu toftal na fanweeri simili ak ñeent bu leen ñuy doog a dab xibaaru marax yi mbokk yi dañu koy dooree ak benn ci ponk yi muy lu jëm ci wàllum eh, yàmba eh, la ñu ca teg loxo ca diwaanub eh, Kédougou daanaka jege na ñaari téeméeri kilo ak juróom fukk ñaamba lu nag ci brigade des douanes bu Moussala nekk ca diwaanu Kédougou ñoom nag la ñu teg loxo rek muy ab camion boo xam ne dafa baw fële ca réew Mali moom nag moo sëfoon boobilee Yamba euh, bañ ko tegee loxo sax ñu xayma ko daal nee ñu euh, mi ngi toll ci euh, fanweer ci million ci sunu koppar loolee itam tax na ñu daal di jàpp rek li nga xamante ne si moom mooy Yamba boobule waaye itam tegaale nañ ci loxo yoo xam ne day yàq lu jëm ci wàllum alom gi lu ci mel ne mercure ak lu ni mel te itam ñu koy woy di jëfandikoo mooy ñuy wër lu jëm ci wàllum wurus foofee ca diwaanu Kédougou jàpp Sabodala ñu wel xibaar yi mbokk yi wax uh, ci leneen ba tey uh, ca diwaanu Sigicoor moom uh, ab jaaykat rek fële ca Kagit yoreb ab butigam ay sàmba booy defkati kati ñaaw ñaawteef ñoo fa ñëw def giraawaali ndax ba nu ñëwee daal dañoo indaale seeni ngànnaay sox seeni bali fetal ba noppi itam jël ca dëkk ba la leen neex daaj ji këf yóbbu lañ def ba noppi itam jël juróomi ndaw yu fekk baax foofile ñu tegaale leen loxo noonu lañ def ba rawale lanu démb lanu sàcc euh, ba ñu rawee nag ke lañ bàyyi gune ya ñu euh, dellu siwaat ñoom gune ya sax ña nga dellu siwaat daanaka bi suuf seddee euh, ca seeni ñoñ Boubacar Diassi toggal ñu ca diwaanu Sigicoor moo nu baaxee bile xibaar beneen xibaar yi beneen ponk itam ñu junj leen ko ca njalbeen ga ci diwaanu ndukkumaan deng moom la ñu gis ne ma ngay law gox ba mu gën a sonal nag di jàmm gën ñu ne woon ci jamonoy nawet ak jafe-jafe yi mën a jur ba tax na sax ah, way fajkat yi di sàkku ci askan woowile ah, ñuy gën a farataal lu jëm ci fàggu gi dañoo gis ne yooyu joxe jàngoro ji di deng moom daanaka ah, bëccëg lay dox ci noone dañuy teewlu docteur Ndeye Mbacke Kane moom nag mooy médecin chef district sanitaire bu Kaffrine kàddu yi ki ko taataan di ki toogal télévision Futur Média ca Ndukkumaan muy Oumar Ndiaye. ñëwoon def situation ci épidémie bi nga xam ne mi ngi lëmbee fii district Kaffrine dool ñu ngi ko nemmeeku ci euh, début mois d' octobre am na yeneen cas yi nga xam ne dañ leen a prélever ñu ñëwaat tamit positif ci loolu nag la direction de la prévention bi nga xam ne moo nekk ministère de la santé lëkkaloo ci ak institut Pasteur ñëw fii ci Kaffrine pour investigation muy aussi natt doyof épidémie bi ci loolu nag ci lañuy defaat gisaat na yeneen cas aussi ñëwaat na mu toll ci actuellement juróom-ñetti cas ñi nga xam ne dañ leen a nemmeeku fii ci district Cap waaw dañu mi ngi dafay yokk parce que dañ nombre de cas yi ñuy suspecté ci juróom-ñetti yooyu gis nañ ne juróom-benn yi ay jigéen lañ te ci ñooñu aussi gis nañ ne bu ñu xaymaa seen at euh, ñi ngi am ñaar fukki at ak juróom-ñaar mooy âge moyen bi ki ci gën a ndaw fukki at benn la am ki ci ban gën a mag mi nga am juróom fukki at ak juróom ci fi ñu dëkk aussi gis nañ ne ci quartier bu ñu naan jàmm gën teebee bu ñuy xool xaaj bi yëpp foofu lañ jóge jàmm euh, gën centre bu ñuy xool fanweer ak juróom foofu lañ jóge ci téeméer boo jël ci ñooñu jàmm euh, Kaffrine 2 moom moo ci gën a néewle ndax téeméer boo jël ci ñooñu euh, fukki yi ak ñaar rek ñoo ñoo ko am fee itam ca Ndoukoumane jàpp Saalum itam am na fa beneen euh, jàngoro euh, bu fa feeñ ñu gën koo xam ci Crimée kongo euh, benn waay nag bu fekk baax Koungheul lañu ko fekk ci moom ca diwaanu Kaolack lañu ko gisee moom waajoo jile ab dawalkatu woto la lu ci mën a am rek amoon nañu ay gëstu fii ci Institut Pasteur mu firnde rek ne jàngoro jooju moom la am moo nekk ci hôpital régional bu Kaolack ñoom way fajkat sax di dalal xel na itam lépp lu jëm ci matukaay wala topp jàngoro ji jamono ji ñuy àddoo ña nga ca ñu wax ci leneen lu ëpp euh, ñaari téeméeri délégué bokk ci ONG ak euh, kuréel yi moom nag dañoo ànd ak alliance nationale des communauté bu leen ko déggee xel dem ci xeex jàngoro ji di Sida seen fukkeelu euh, assemblée générale ak benn ci lañ doon nekk ba tax na sax waxtaan nañu lu jëm ci jàngoro ji ak itam naka la ñuy def ba gën koo mën a fàggu ci noonee dañuy teewlu docteur Safiatou Thiam kàddu yi mi ngi ko dénk Ibou Diouf. bu ñu bëggee jëlee Sida. il faut que ñu changer doxalin il mënuñu fi jëlee sida ak euh, li nga xam ne moom la ñu tàmm def soo bëggee lu bees il faut nga yokk sa loxo donc ñun ci doxalin bu bees boobu la ñu wax ne bu ñuy lëkkaloo ak euh, organisation communautaire tey bu ñuy wax ne Sénégal am na ndam ci xeex feebaru sida lu bare organisation communautaire yi moo tax ñu am ci ndam tey jii li des pour ñu àggali xeex feebaru sida bi li ci ëpp organisation communautaire yi ñoom ñoo ko war a indi moo tax ñu leen di wax ne leen nañu continuer fi ñu nekk foofu la mais nañu góor góorgóorlu ba bu ñu changer seen identité parce que euh, changer seen identité mooy bëgg def coûte que coûte ni organisation gouvernementale yi di doxee naan ah damay ubbi telle heure telle heure ma tëj fii laay yem et cetera non c'est pas ce qu'on attend de la société civile ñun li ñuy xaar ci organisation communautaire mooy bu bu hôpital tëjee euh, ñoom ñu ubbi 18h ba minuit bu leen neexee. aywa ñu dem ci voyagiste privé yi ak assemblée générale bi ñu doon euh, amal ñoom nag aj màkk gaar doxalin bi ci réew mi moo leen euh, mitti bokk na ci itam euh, lu jëm ci yenn ci compagnie yeeg nañu seeralee mbir mi waaye itam quota di lim bi nga xam ne réewum Sénégal am na ko ci ujaat at mu jot waaye doxalinu délégué général bi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllum aj gi ci seen assemblée général ci lañ sax sàkku ci nguur ak Sénégal mbir mi tey ji la woon ci aser ji ci teewaayu euh, Cheikh la woon ak euh, Modou Diop. ñetti at ginnaaw bu ñu jógee ci dëkku sell wa ñu lee dajewaat fii ngir daal di càmbar mbir yi ana naka la doxee woon ba tax ñu ñaawul bu baax a baax yenn ci ay jafe-jafe yoo xamante nii rek jot nañ ko jànkonteel. dañoo bari lu ñu naqare si aj gi ndax aj gi gis nañ ne ñun dañuy faral di teg ay mitit ay charge yu bari charge yoo xam ne kenn xamul fu muy jógee te charge yooyu bu ñëwee dal suñu kaw day delluwaat dal ci pèlerin bi te nit ñi dañuy defee ne rek ñun la alors que coût yi augmenté ñoo koy indi bi ci jiitu mooy Flynas aviation compagnie aviation bi compagnie aviation bi mu ngi ñu jox prix boo xam ne million trois cent c'est excessif alors que ñun man mun naa wàññeeku gis nañ ne digg nañ ñu ay ay saak ñu jëkk ko suñu pèlerin te bi ñuy fax wax ak yéen ba tey ji ni saag yooyu gisuñu ko kon problème yi bari na mais problème yi nag bi ci gën a miti fi ñu toll nii mooy iyaata bi nga xam ne ni dañu ko exiger ne arabu saoudite la jóge mais ñun nag yàgg nañ ci xaj aj gi te xam nañ ne arabu saoudite même bu décidé dara dafa respecté Sénégal parce que loolu la ma sa wone kon tey bu décidé loo xam ne arrangé wul Sénégal ñun dañoo war a jóg sur le plan diplomatique dem wax ak ñoom ne leen lii arrangé wuñu surtout que dañ ne ñu dans un délai de trois mois il faut ngeen indi un agrément IATA qui coûte cent millions de francs mais c'est pas possible dans la mesure où surtout li gën a am solo sax mooy ñun IATA suñu yoon de chez newul ndax waa IATA mooy ñan ñiy jaay billet ñun jaayuñu billet at bu jot laata ak ginnaaw bu ñu jógee ci màqatal mu karam ay jafe-jafe rek la ñuy nemmeeku ba tax ñu ñaaw lu baax itam doxalinu délégué général bi. bokk na ci blocage yi ñu bàyyi fi ñu am expérience ñu am expertise di jël ñi nga xamante ni dañuy ñëw pour ñu gérer foog ñu jàng ak kon loolu tamit ñun gis nañ ne bokk na ci jafe-jafe yi nga xamante ne nii am nañ ko te bokk na ci li ñuy naqar. ngir ab àcc bu jaar yoon regroupement bi nag di sàkku ci nguuru Sénégal mu dikk ak ñoom ci ay ndimbal. 2019 bi. privatisation intégrale waroon na am mais dañoo sentir benn volonté pour faire reculer cette échéance là kon ñuy waxal président de la république luy jot jot na ñun bu ñu dee gérer onze mille pèlerins képp ku gérer onze mille pèlerins war nga mun a gérer treize mille du dara si ow bu ñu gëmloo kenn ne ñun mënuñoo gérer gérer at gi mun nañ ko parce que wane nañ ko at gi bu ëgsee fii ñun la. association bi la nga xam ne dafa boole voyage privé yi nag taxaw temb ngir rek seen ay aajo daal di faju ñoom ñi le nag li ñu bëgg moom moo di at bu yàlla sàkk ñuy dem ca màkkatal mu karam te du am benn jafe-jafe. Cheikh Diop ñu sant la gërëm la wax ci centre commercial bu Thiaroye promoteur boo ko fa defoon daaneel na ko euh, rek euh, ci euh, ndigalul wala bokk ci maire Thiaroye Gare ak na mu ko ko waxee commerçant ya maire ba futu di sàkku rek nag ci kilifa yi waaye itam nee ñu dañuy yóbbu kalaam bi ki nga xam ne moom mooy Ali Diallo di promoteur boobu les centre commercial moom it am na lu mu dénk Salif Sow ak Asmalik Diop ñu teewlu leen ci gëstu bi. wàllum kaaraange tax ba mairie Thiaroye Gare jox ndigal promoteur bi di ki tabax centre commercial bu Thiaroye ngir mu toj taabal yi nga xamante ni kenn jëfandoowu leen ñi nga xamante ni ñoom ñooy commerçant yi ñoom nag dañoo mer ba futt ci dogal boobu ndaxte nee ñu seen yëf la gars yi jaay doole leen ñoom jël ko. ñun dañoo euh, jënd ay place fii si commerce euh, centre commercial bu Ali Diallo ñu toog benn benn jour rek ñu yeewu ñu ñëw fekk suñuy place yëpp ñu daaneel ko ñu jóg dem si Ali Diallo pour waxtaan ak moom lu tax mu daane suñuy place te moom si boppam moo ñu jaay te num ñu jaayee si ay. papier yu lañu am. nangu na ni maire moo ko signé mais ci kaw maire moo ko signé mooy nee na Ali Diallo dafa ni ko daf fi am 700 table yoo xam ne moo ko moom yooyu la ko waxoon moom lay démolir. kon waxu ko moom mu démolir benn place su jàmbur Ali ñëw démolir lépp. bàyyiwul dara sans consente kenn dañ ko topp ba fa ba fu mbax na nekkee benn ñu tabaxaata ñu suñuy place directement si lu fay yàqu la ñu fay ko place yi ñun c'est commerçant caaroy gaar yi ñoo ko moom promoteur immobilier bi nee na du ci lenn ndaxte nee na moom dañ koo jox ndigal te it seddu na ne centre commercial bi yenn yoon yi gaaña lañ te doon lalee du dëgg du yoon li nga xamante ni mooy ñaari junni ak ñaari téeméeri taabal ya fa nekkoon it kenn jëfandikoo leen woon saay saay seeg def katu yu bon yi fa lañ doon làkku. mairie bi am lettre bu ñu bindee depuis le 26 août dernier utilisation tablier yooyu dafa am lu mu engendré ñoom amuñ ci benn njëriñ mooy amalu leen benn njëriñ amuñu benn taxe municipale benn ñaar insécurité bi fa nekk ñett enregistré nañ foofu ay cas de décès yu fa sapeur génne ñeent dafa am yu fay jur seen ay doom di ko fa bàyyi donc mu nekk benn abri boo xamante ni danger la woon ci population wu Thiaroye centre commercial bu Thiaroye ñu ngi ko tabax atum 2004 ñu ngi ko tabax ci lu toll juróom benn hectare bañ ko ubbeeg léegi nag li ñu fa seetlu mooy na coow bari na fa ci diggante ki nga xamante ni moom moo tabax bërëb ba di ko jaay wala di ko luwe ak it ñi nga xamante ni ñooy commerçant ya fa nekk. Salif Sow ñu sant la gërëm la ca Kayar Fanta Siro moo am ci gis-gis euh, diggante euh, ñi nga xam ne ñoo fa nekk ndax jaraaf bu kayaar ànd ak itam euh, kilifa aada yi ak ñenn ca waa ba amal ab dox nag ngir rek ànd di tax ñu taxawal fa usine boo xam ne day liggéey ci pënd pëndaxub jën lool nag bu ñu nimmi koo fani ci ginnaaw leneen safaan ba moo amoon ndax dafa amoon ñeneen itam ñu fekk baax foofee ca Kayar génn ne usine ba du fa taxawe mu mel nii kenn ku ne yaa ngi ci sa lu ci mën a am Euh, tey ñu doon amal ab dox ngir ñu taxawal fa boobule usine neenu la tax ñu amal lu ni mel ndawi gox ba euh, dinañ ci amub liggéey ba noppi itam jëndootu yàqooti ci tefes loolu euh, mooy seen kàddu Cheikh Anta Diop ànd ak say latir topp leen ci dox bi ñi ngi ànd dox jóge ci quai de pêche bi jubale ci booru mairie bi di ay góor ki jigéen mag ak ndaw ñii ay nappkat jaaykatu jën jigéen ñi coppar ñi jën yi ñoom ñëpp nag bëgg ci li nga xamante ne moom mooy projet bi neen fas yéene indil fii ci Kayar di Barna Sénégal di ab usine boo xamante ne dañ fiy coppar ñiy jën def ko farine di ko yóbbu bitim réew jaraafu dëkk bi wax ne lii de lu baax la ci Kayar Kayar d'accord Mbaawaan d'accord kër Abdoulaye d'accord Ndiokhop d'accord yàlla def na indi na lu mel nii ñëpp bokk ko ma ni ku bëgg lu baax da nga doon jàppale. Talla Diagne wax ne lii de ko koo yéem. ñëpp a ngi fi pêcheurs yi mareyeurs yi magi dëkk bi ñi nga xamante ni imaam yi euh, responsable euh, coutumier yi baykat yi opérateur ko jaraafu dëkk bi ñëpp ñi nga xamante ni Kayar moo leen ñor ñoo ngi fi ñun population Kayar li ñu intéressé mooy Bardan Sénégal dañ ko soxla projet bi dem na ci sept milliards de francs CFA mois de décembre normalement usine bi war naa ubbi liggéey ay nit naan usine bi du fi am ñi fi bëgg usine am ñoo ngi nii gis ngeen mbooloo mi. maire dëkk bi ñaawlu ñenn ci ay waa Kayar yi nga xamante ne nee na dañoo jóg ngir nësaxal projet bi te loolu dañ koo bëgg a xañ askan wi. ñett yi ñuy wax ñu ba tey ñooy wax te du ñuy continuer wax mais nit ki nag bu fekkee da laa opposé ba boo defee lu baax du ko wax. boo gisee lu bu gisee lu baax du ko wax. kooku boo ko dalee du ñëw sax pour nga koy dalal parce que du la bëgg rencontrer ñun nag ñi ànd ak ñun mooy population Kayar ñu ngi nii. kayaar gi yëpp takkoon jóg di ay notable di ay chef de quartier ñoom ñëpp nag dikkoon fii ci buntu maire bi aywa Cheikh jom Diop ñu sant la gërëm la doxantu ca Bawal ak itam teewaayu soxna yi eh, ci fan yi jëlee dogal yi ci eh, gox yax gox goxaan yi mu mel ni soxna yi réew mi nee ñu ba tey lañ ca bëgg amaguñ ko ca eh, batax na sax foofee ca diwaanub njaareem kuréel gay toppatoo lu jëm ci wàll wi ne sax dàqute itam dem seeti kilifa diine yi ci réew mi ngir nag ñu indi saafara ci boobu jafe-jafe tënk leen Babacar juuf ndongo Ndiaye lañuy fekk ca njaareem jàpp Bambey. même bu dee parité dañ koy def ci liste électorale yi ci bureau yi nga xam ne ñoom ñoo yore mairie yeeg conseil départemental yi duñ ko fa nemmeeku ci diwaanu Njaareem amut benn bureau municipal wala conseil départemental boo xam ne ni parité am na fi loo xam ne nii ñi nga xam ne ñooy jigéen ñi naqarlu nañ ko lool. boo defee liste def la parité tamit c'est bien beau liste bi mën naa paritaire mais instant décision yi nga xam ne. jigéen ji fa la wala ma am kàddu ba mën a décider à la place la place de d' autres femmes foofu moo amul parité. situation bi nag dañ ko war a dépasser ba tax ñoom ko sekk ñu amal ay série formation yoo xam ni kër jigéen yi pour ñu mën a jot seen bopp. tàggat jigéen ñi nga xam ne ñoom lañu mbëbët ñi dinañu war a am taxawaay war a nekk ay candidat ci élection locale yi di ñëw bo programme boobu nag dañ ci ànd ak agi AJWS. dàquñu sax dem toog ak kilifa diine yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci réew mi waxtaan ak ñoom ci solos mbir mi. ndax nag dañu am suñu ay réalité réalité yooyu dañ ci àndandoo ak ñi nga xam ne mooy suñuy kilifa diine yi. ànd ci aussi ak euh, yeneen kilifa aada yi. conseil sénégalais des femmes ñoom ñoo dajale woon femmes jigéen ñi nga xam ne dañoo am baat ci diwaanu jaareem di leen tàggat pour mën a gën a am ay candidat yoo xam ne nii dañuy taxawal seen bopp. ci élection locale yi ñu jëm. Babacar Diouf ñu sant la gërëm la wax itam ci leneen muy communiqué euh, bi waa parti démocratique euh, sénégalais génnit euh, kenn ku secrétaire général bi xaatim ko di wax ci ñaawlu doxalinu Oumar Sarr ak ñam mu àndal Serigne Saliou Gueye xam-xamam ngeen baal ma màcc ci wàllum politique di taskatu xabaar la mu gis rek mooy Oumar Sarr ak ñoñom ci boppam waa parti démocratique sénégalais dañ leen dàq Alhassane Ba ak Mohamed Dieng ñooñ ci defal gëstu. ci ab communiqué la ko tënk ñeenti poñ la joxe comme exemple yi wane ni moom li muy yëngu wute na lool ak li nga xam ne moom la parti bi tënk moom Omar Sarr maître Abdoulaye Wade ci li ni mel daal di jël dogal jàpp ni moom Omar Sarr ci boppam mi nga xam ne dafa bokk ci alliance Suxali Suppi nekkoon itam coordonnateur bu parti démocratique sénégalais dafa tekkil boppam ndombol tànkam. xam nga wax jooju soo ko jàngatee mooy Omar Sarr ak ñi nga xamante ne moom la àndal dàq nañ leen ci parti démocratique sénégalais. Euh, peut-être que tour dàq bi day metti ñu wax ko walla dafay xaw a ñaaw ci ñoom pour ñu wax ko mais wax ji wax ji mooy Omar Sarr ak euh, ñoom Babacar Gueye ak ñoom euh, maître Amadou Sall tey ñoom bokkatuñu ci parti démocratique sénégalais dàq nañ leen. parce que boo gisee parti démocratique sénégalais ni muy fonctionner mm-hmm. chaque fois cas yu mel ni su amee. soit dinañ réunir comité directeur wax ne diw ak diw ak diw ñoom li ñuy def méngoowul ak li nga xam ne moom la parti bi santaane dàq nañ leen ko. comme ni mu amee woon ci cas Modou Diagne Fada wala sax kii di maître Madické Niang nga xam ne sax dañ leen dàqoon ci parti bi moom politologue bi gisee ni ni mel ci laaj bi nga xam ne moo di ne ndax dogal bi jaar na yoon dogal bi nga xam ne moom secrétaire général national bu PDS jël na ko ci cas Omar Sarr lii la ci tontu. biir parti démocratique sénégalais mënuñu faa wax légitimité. Mhm. mënuñu ma mënuñu wax faa wax légalité ci décision bi nga xamante ne moom lañ jël. Mhm. li nga xamante ne moo fa légitime moo fa légal mhm. mooy ndogal yi nga xamante ne moom la Abdoulaye Wade di jël. parce que ñoom ñoo demoon bu beneen instant boo xamante ni ñoom ñoo ko joxoon sañ-sañ boobu. ba Abdoulaye waat décision boobu xam ne moom la jël. ñoom dañ ci ànd loolu tax sax ñu tuddee woon ko la constante décision yooyu aussi tey gis nañ ne doomam dina jël décision yu mel noonu mais toujours dañ koy jaarale maanaam ci ci Ablaye Wade réaction bu moom Omar Sarr mu mel ni kon ñu koy xaarandi ci mbir mi ni mel. Alhassane Ba moom Omar Sarr ma ñu joxoñ baaraamu tuuma sax ci boobu lay communiqué ak euh, kuréel gi mu jiite muy euh, alliance suqali soppi ñoom it xaatim nañu euh, seen communiqué nee ñu loolu ñu naan président Wade moo ko bind ak xaatim kan ca gannaaw du kenn ku dul Karim Wade moom Karim Wade sax la ñu gis mooy règlement intérieur maanaam chart ya tënk parti bi di PDS xamu ca dara moo tax itam bu nu xoolee communiqué bi day firndeel ne charte parti boobu moom euh, Karim Wade umpale ne euh, ñoom nag euh, suqali soppi sax ëllëg dibeer ñaar fukki fan ak ñett ci weeru novembre dina ñu amal seen ndaje ngir rek xool ban yan dogal la ñuy jël gannaaw coow loo lile ñu ñëw ci xibaar yi biti réew ak nañ leen ko waxe woon ca ponk ya ëllëg itam di dibeer ñaar fukki fan ak ñett ci weeru novembre ko jongante palub njiitu réew la ca Guinée Bissau waxtu wi ni àddoo baax ko Barka Ba moom la ñu fa yebal Barka maa ngi lay nuyu. Euh, Barka euh, ndax mën nañoo ñëw euh, jamono ji ci situation bu foofee ca Guinée Bissau jumtukaay yi ni soxla ak lu ni mel mbir mi fan la toll jamono ji waaw Faty affaire bi daanaka président commission électorale bi neen lépp yemb na ñun lu ñu nekk bi ñu ñëwee mooy ci campagne bi candidat yi ku nekk mu def nga sa campagne ci jàmm gisuñu fi benn jafe-jafe lu dul ku nekk bàkku na wane wane dooleem seen ponk itam muy euh, candidat yi maanaam ñi samp seen dënd euh, ndax mën nañoo dellu siwaat xam ñan ak ñan la waaw douze lañ ci jongante bi euh, mooy fukk ak ñaar waaye ñeent daal ñett ba ñeent ñoo ci gën a fës ki ci njëkk mooy Dominique Domingo Simão Pereira mu nekkoon fi premier ministre mais amoon ak jafe-jafe ak président José Mario Vaz moom mooy candidat wu parti bu gën a yàgg ci dëkk bi mooy parti Amilcar Cabral bi di PAIGC euh, moom ak euh, ki ñuy wax euh, Oumar Sissoko Mbalo nekkoon tamit premier ministre nekk kuy bàkkoo ne moom dafa jege président Macky Sall lool ñu lañu gën a nemmeeku pour le moment que ci campagne bi ñoom ñoo ëpp ay nit yu ñu yu ñu yu ñu gis ñu topp leen am na keneen mooy président sortant bi di Jomav ñu koy wax José Mario Vaz moom aussi léegi candidat indépendant la moom parti bu mu nekkoon dafa am ak ñoom ay jafe-jafe moom ak beneen ancien premier ministre bu ñuy wax Kadogo ñoom aussi ci mbër yu mag yi la ñu bokk. Euh, Barka ñu ñëw rek ci laaj bu mujj muy lu jëm ci wàllum kaaraange gi ndax euh, itam euh, armée bi maanaam takk der yi jël nañ bépp matukaay ku ne xam ne itam ñu ngi doon wax crise politique boo xam ne am na Guinée Bissau waaw euh, pour le moment loolu euh, karange bi mu ngi fi waa CEDEAO ñu ngi fi di observer scrutin bi te militaire euh, Bissau Guinée yi nee nañ ñoom duñu intervenir ci processus bi ci seen ci làmmiñu seen chef d'état major moom ñoom lañ gënoon ragal parce que dëkk bi ñëpp xam nañ tradition moom coup d'état ak ay yëngu-yëngu yoo xam ne militaire yi dañ ci doon dugal seen loxo waaye nee nañ ci scrutin bi ci kàddu seen chef d'état major dañuy bàyyi politiciens yi def seen i ñoom ñu ngi toog ci seen caserne yi waa CEDEAO aussi am nañ fi ay forces militaires ay contingents yu fi yu fi ñëw pour assurer kaaraange wi ba pare euh, ay observateurs Union africaine aussi ñëw nañu renforcer leen pour crédibilité scrutin bi. Barka baax ñu sant ko bu baax gërëm ko moom la ma ñu moom lañu ñu yebal fële ca Guinée Bissau kon jàpp leen jongante njiit njiiti réew bi ëllëg lañ ko jàpp ñaar fukki fan ak ñett yamook dibeer ci weeru novembre atum 2019 ñu jeexale tàggat yaram ak tournoi IFOA bi am zone A ci ñi seeni at toll ci ñaar fukk wala mu yées ko ci ginne Sénégal sax nag ma nga ca poule A ba ëllëg itam ci dibeer ji bu juróom-ñaari waxtu jotee dina tase ak Sierra Leone dañ ci ànd ak Cheikh Saad bu Diarra mu indi ñu ci ay leeral. junior sénégalais dina door projet bu bees ci dibéer bi mu nekk ci tournoi fois zone A bi bi ñuy amal ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru novembre ba ci juróom-ñetti fan ci weeru décembre bii di ñëw ca réewu Guinée. si daabo bi leen di tàggat woo ci ñaar fukki jour ñi ci ëpp doon ñu bees ci équipe nationale bu catégorie junior bi selection ba demoon ca mondial u ba ñett rekk ñoo des ci équipe bi. John Lopy bu Oslo Academy ak ñaari milieu offensif yu jàmbaar yi di Ousseynou ñaa ak Ibrahima Dramé si noonu ñoom ñoo nar a nekk cadre yi war a wan yoon wi yu bees ñi bokk nañ si ay cadre yu yéeg ginnaaw seen place huitième de finaliste ca coupe du monde bi ñu seen at yees fukk ñaar bi amoon at bi ca Brésil Souleymane fay ak Birane Diaw bu Galaxy Foot Academy ak Pape Matar Sarr bu Génération Foot jël ay galon ca tournoi guinéen bi Sénégal mu ngi si groupe A bi ànd si ak Guinée Sierra Leone ak Mauritanie U20 yi di laaleeg Sierra Leone yi dibéer bii bu 19h jotee talaata bi ñu jongante ak waa gine bu 16h jotee Mauritanie la ñuy dajal si match bu mujj si phase de poule bi ajuma bu 16h jotee itam. sat bu jara jërëjëf mbokk yi mu ngoog ñu ngi rafetlu itam ni ngeen àndi ak seen kóoluteeg seen safi cofeel eh, di leen wax ngeen desandi ak programme yu télévision Futur Média Cheikh Tidiane Diaw noppi na ci xibaar yi ci français di leen ñaanal panaanum jàmm di ko sàkku ci yéen